ba ini dañuy dem di jouer play feulé mais duñ la gis ak koor gi la la la moy problème bi gaay si boy koor gi mom essay bi bay rek boy mama ma sama gaal boy dama ragal xif ragal xif go xam suma ci si di génn di demee yoy non damay gaay rawati na ngay génn ci naju tang bi bi kay boy ma ngi fi boy di enjoy sama enjoy waaw next jam. jam la démé quoi. waaw non démé da sax yow man waxuma non mais frère. la. góor. mais yow nan nga ak sa koor gi quoi. musique bi mooy war wala maay yaay war mais dama lay laaj. comment. éviter à chaque fois su ma toogee jàpp sama les ngay tudd sama musique ak yu demee noonu musique bi warul maay wor génnal foofu. mais la moo tax yow nga soof yow. mu ngi daal yow kenn du lox yow dëgg ku soof nga yow. waay ndaw eh yow da ngay liggéey wala liggéeyoo. ba nga xëyee ba léegi da ngaa gisul ma def sama liggéey wala dama la niroo kuy liggéey. ku kastañ lii bàyyi li bàyyi lii la la di. la ma sooyoon loolu la ngay lijjantee ki yow. mais Mass kii kan la. moo xale du tontu yow li nga sol nii pour lan la. yoo xanaa xamoo ci weeru koor nga nekk bu dul dara góoru kër gi xanaa gisoo leen fii ñoom ñëpp ay responsable la dañoo yor seen i jabar maa sa fi nekk te xale la rek leen te nga pour tourné ma xool. Eh, waay. meex nga def sa balage sa korob top say cristal nga ne da liggéey eh yii na arrêté yii ci kër gi na arrêté sinon nga génn si biti est-ce que yaa dégg. yow yaay arrêté yow do def dara eh casting mu njëkk ba <laughs> mal casting la dama joom waye gis nga bi man mako casting dégg nga wara war ma tegg ci saxal xel tegg ci sa bët may wax nga naan korotab ba balarge ak ay ans da monté ans nax nga sa bop ne ko jàkk xol ko ba nga lamb daj bi bii may xey fajar dem jëndaliko lu ko neex mu koy sol ci kër gi ta du ngeen ko fajj deg na la nak ngay lim sama njabot gi ba limale mas <laughs> yak nga ko maas bokku ci dama ni ñett ngeen ñett xex bi ñett la jatu mu ndaw du duggu maasur duggul deux a deux la deg nga ma eh ci bir loy wax ñay baa xam nga li ngay def tegoo ko ci yoon gis nga lu jaadu ko gis xam ko Yo, xalé bi warna sol li mu sol ni nga koy influencer lu bol li mu sol kon yaay defal la neex bam mu neex te ay ans yo de bo mënoon a monté leneen monté ko li ngay ñak cafka ci bari defal lu la neex ci kër gi la fal ta duma la fon mo dox sax dama koy wax na am benn bon mais bon bi di ngand ngand lo di ñaangal ñu jël ko fi mi ki depuis bi mu ci galé ba légui ni booy instant eh, yi nii booy sama koor nice yëgatuma dara ci koor gi damay génn suba ak ngoon am eh, instant fi mu nekk nii moom toog ay koor nii nii yëgatuma ko de. moo tax ñëwatoo ci gars yi booy dama lay wax xool doo am koor de <laughs> bu fekkee lii moo tax man du ma am koor kon da sama koor yàq na bu yàgg. avec ça ngay tudd sama musique te yaa gën a caaga ñëpp. waxuma ak yow. kii laay waxal. Aziz dama ñëw fii tey pour waxtaan ak yow euh, dama waxoon damay gàttal sama tànk tey seen kër gi tey. ndax lepp sa yaay ndax tusul gu jot mi ngi xulo ak man gënal sama kër gënal sama kër Aziz man amna kër waye nak yow da nga njol mënuma laa njol yootu nga mu mënuma laa pour na motax bala ma gattal sama tank ci kër gi dina waxtaan ak yow dama bëgg na tok sama kër su ngeen ma soxla ngeen fekk ma sama kër wala ngeen woo ma téléphone man bala ma def loolu na gis assis waxtaan ak mom ba pare soko def limay def loolu moy samay tank tay vous avez bien fait vous avez bien fait tonton d' abord maa ngi rafetlu jotaay bi ni ak waxtaan bi ni euh, am na loolu rëcc loo nga bal ma mais soko defone rek dina nuroog ni da nga muju ñak fayda. ci naka. ndax suma yaay. Mhm. cër bi mu am ci kër gi ni yow ya, so fi amul lu ko raw mom am ko fi ni mu ñu juree yow ya, nonu nga ñu juré kër gi waxuma la dem ak dik mais da fi sax war di mhm. fanan yow loolu ci yow yow lay neex ñun tay sax ñun la ñun la waron nga tok sa kër ñuy tal suñu auto di la fex mais yow sa mbax ak sa bëgg lu rafet motax chaque fois boo xëyee némé ko ci xol njaboot gi ci lan la hmm moy mom loolu mom war. waaw légui nak je sais pas man c'est quoi son problème. hmm suma yaay la. te musuma sax di jàkkaarloog mom di di di di am yenn affrontement ak mom parce que j'ai peur aussi de péter les plombs voilà, de dire de de gros mots que je pourrais après regretter hein? parce que wajur aussi du touti hein ah moy problème bi mais comme tu viens de dire trop c'est trop hein trop c'est trop te yi def ni man xawma lan la mais léegi la commencé dal mel woon nii auparavant suma yaay. Aziz su ma la waxee tamit waxtaanal ak nga waxtaan ak mom yëkkati xolam. ndax nday ak dom duno jegeñee xamal ni ngay waxtaan ak mom waxtaan ak mom jék ci tranga euh, dégg na tamit sa wax lu ma dina bayyi lepp ngir sa jëm si tonto content na trop man xamna ni nga don ragal lol kasse la pour mo wax ak mom wax lim don wax ya fi ñew jaxase mak ak samay doom mm-hmm. te lolu sa intention yow sa intention ba sonen mo chaque fois so ñew ci kër gi fekk lepp rek tax suñu diggante ak mom sa njabot yëpp nekk ben di kaf ak retaan mais mom lañu xamul ci kom

Mangi so soog a wàcc dama xaw sonn ci. waaw wax nga dëgg wax nga dëgg nga allah dinaa waxtaan ak moom lu mu mën a teg incha allah. waaw baax na baax na su ma paree yow lu ci am rek di nga yëg ni kontaan nga bu baax. waaw kay léegi nag moom sama xol sedd musuma ba ma la ba ma la xamee ba léegi ngay xale lu baax rek laa la xamee moo tax tamit bi ma meree ma ne ma tëdd ba sama kër ma ne ah lii su ko defee Aziz dina waaru. léegi naa dem ba ca moom ma waxtaan ak moom. léegi nag moom à part dossier bi. la ma la ma jàppoon lépp bàyyi naa ko. c'est bien ba lépp mu sedd waaw lépp moom ah. dinaa ko bàyyi. ba lépp mu sedd c'est bien waaye nag boo toogee moom di waxtaan ak moom rek. xamal ni ngay wax. ne vous inquiétez même pas loolu na sa mm-hmm. moom ci mm-hmm. cadre boo xamante ni dina comprendre te du ma ko vexé incha allah. Mm-hmm.